directeur général ndax du tey la njëkk assister suñuy réunion te néew na DG yu may gis fii ci réunion yi néew na lool ci yenn yeme statut rek kon loolu yitte la ñu ngi la ci remercier bu baax donte ne da nga yor secteur à problème ñun ñëpp xam nañ ko waaye effort yi ngay def xam nañ ko gis nañ ko baax li ci xamal na yëg nañ ko Euh, di bareel ba tey ay cant ci turu comité bi Maawu Rahmat yi ak équipe am sapeur pompier daaw def na liggéey yu am solo ndax euh, dafa mel ne seen euh, li tax ñu leen ñu sàkk leen lépp muy dimbali nit ñi ci accident yi waaye dimbali askan wi ci. assainissement lépp def nañ ci lu kawe njort loolu biir taw yi gis nañ leen ba tey ñu intervenir euh, moom daal vraiment def nañ seen mission ak service yi ñu àndal yépp nag police euh, gendarmerie surtout gendarmerie ñi ñoom ñëpp ñu ngi leen sant vraiment di wax rek ne Touba moo toll noonu ñun xam nañ ne problème àdduna sax lay lay wax rek de façon dund gi noonu la ko yàlla bindee faaw ñuy am liggéey bu ñu demoon ba lépp dox kenn kenn dootul def dara kenn dootul am njariñ waaw muy am mais problème yi aussi il faut ñu koy posé suñ koy posé il faut que ñu yëg ne nit ñi am nañ intention régler suñuy problème waaw ndax nag nit nit la ci ñëpp am xel ñëppay xalaat loo defee ne nit xamu ko rek xam na lu ëpp loolu kon loolu lu mat di bàyyi xel la ci situation yu mel nii gay aussi ñu koy remercier ndax yàgg na fi yàgg na ñoo liggéey vraiment muy nitu jàmm nit ku fonk liggéey waaye trop exigeant aussi des fois <laughs> loolu loolu lañ ko xamal nit la ku fonk liggéeyam koo xam ne du ci foow du ci caaxaan waaye exigeant lool ndax màggal gi ñu ngi lay ñaan toujours chaque année ñu répété la ko mooy ngeen allégé ci euh, ngeen di dimbali avance toujours heure de dépôt yi ci ci ci ci ci dépotoir yi waaye chaque année ñu renouveler ko ci loolu def naa mën na ñàkk parce que ñoo bokk secteur bi yéen yéen ñu jox camion yi dañoo ko may kon war ngeen mën a comprendre xam ne dañ leen di soxla ba à certaine heure ngeen war a mën a def loolu donc loolu def naa du ñu ko ñaanal da ngeen ci bàyyi xel ndax at bu jot dañu renouveler demande boobu ci yéen ñu gën a xam ne ñuy liggéey parce que yéen jox liggéey li ci jàlloon daawit comprendre nañ Euh, li ñu ci gën a kii mooy ñu xam ne lii mooy li mën a am ñu gérer ko ni mu ñëwee loolu aussi lu am solo la lu am solo la parce que kenn du joxe lu amul waaye nag ñu xam nan la demee lu am solo la ndax daana mën a taxit euh, comme ñu bari dañuy xaar ñu mën a xam nan lañuy doxale li ñu am donc ci gàttal daal gouverneur ñi ngi sant ci taxawaay bi ñaan yàlla rek ne am nañ ni problème moom du mën a am waaye yàlla na gën a woyof lool surtout ndox mi am benn laaj it bu ma bëggoon laaj parce que projet assainissement aux usines yi dama gis ne biir ci biir centre ville bi gisuguma fi yenn euh, canalisation dama xamul liñ ci bokkul xaw ma dafa mel ni tëli yoonu suuf yi rek lañ topp est-ce que ñun yooyu dañ ci amul ñu am privilège man ci branché wala wala nu mu dem Euh, ñu ngi wax ci gestion des eaux usées wax nañ léegi effort yi ñuy def daaw ñu waroon a indi cinquante camions vidange fosse septique finalement ñu indi trente xam naa loolu sax sëñ Ousmane dana ci dellusiwaat waaye demande bi bari lool ñoom itam ñu am vision ba indi benn programme mooy programme des dix villes bi mu wax léegi ñu tàmbali Touba ONAS ñu tàmbali ko Touba bay defar réseau bi ak station bi ñuy defar Mbàkke bay raccordé ak yooyu kër yeeg yooyu ba kër yi ñu leen defal ay cutis ñuy fay mais li ma jàpp mooy euh, loolu su paree danañu dimbali lu lu baree bari ci camion yooyu mais dafa jëlagun rek yenn quartier muy Daaru Xuddoos ak Gédéek ak euh, euh, réseau bi war a jaar foofu dem dem Mbàkke en fait loolu li ma ci bëgg a wax profito ci occasion bi mooy gis nañ ne xaw naa manqué tuuti communication mas naa ko wax fii benn jotaay muy CRD màggalu Daaru Xudoos euh, euh, préfet bi fi nekkoon di ma ci tontu waaye booba comprendre woon li ma doon wax waaye fan yi ci ginnaaw ñun cabinet bi nga xam ne moo fi nekk bi mu demee ba wenn ci askan wi ñu leen di laaj xaalis mu jaaxal leen ñun ñu interpellé ci ñu ci lu baree baree bari ñu woo leen ñu soog a toog ak ñoom waxtaan pour harmoniser loolu nag li may wax fii mooy monsieur le préfet monsieur le gouverneur autant pour moi ci projet boobu gis nañ ne euh, benn commité de pilotage boo xam ne acteurs yi ko séq yépp dañ ci waroon nekk gis nañ ko waroon na ci nekk ci terme yi mais loolu aussi amut loolu aussi ñuy ñaan ñu am pour ñu mën a rectifier yi yi passé ci communication bi ma ndax war nañ def ay réunion euh, ci communauté bi def ay VAD def ay communiqué yooyu cadre boobu bu ñu ko créer defe naa vraiment li ñu fi bëgg a def danañ ci danañ ci gën a gën a jàppalante ko ñu def ko noo xam ne wax dëgg yàlla du am du am benn ngaañ ndax li ñu daloon ci yenn jafe-jafe yi la ñuy bañ ci ndox mi wax nañ ko léegi ay entreprise yoo xam ne dañuy ñëw defal tëral teewoo ba pare duñ ko raccorder fenn. kon nag lii dañ ko war a ànd saytu loolu nag mënuñu ko defar ci amuñu benn cadre comité de pilotage boobu daal vraiment maa ngi koy proposé ak gouverneur ñoom li ñu leen waxoon sax mooy ñoom seen kilifa yi nañ dellusiwaat ñu toogaat ñu waxtaanaat harmoniser waat kon occasion bi looloo tax ma ko ciy wax.